Euh, boobule euh, dogal mu jël euh, lan lay signifier réellement tey jii rey Sénégal rey Sénégal rey avenir u Sénégal rey histoire Sénégal bëgg fi indi lu bees lu Sénégalais yi mësul xam ñëpp yaakaaroon nañ ne mën na def lu nekk suuf lii. Mhm. ndax su ma koy méngalee dama bëgg wax d'abord ak peuple sénégalais bi li ma leen di wax mooy bu may méngale li mu def. damay jël imam bu war a dem ci jàkk waru julli ji taafantaloo ne mënul ñëw jullee ñu li xaam taxawal dem bay waaj julli mu dugg si jàkk ji ne moom mooy jiite jàkk ji moom mooy jiite julli bi mm-hmm. donc loolu rek la def yàq julli jullit yi fa nekkoon kon tey jii dafa yàq image yu Sénégal dafa yàq gis-gis bi nit ñi doon am si senegal ba pare teg fi ñaawteef ba nga xamante ne fu muy mujje kenn xamul lan la